ñu lëkk ko ci wàll Sénégal dañu ko tënk ci ñeent fukki département ak juróom benn tubaab naan ko 46 loolu am na solo ñeent fukki département ak juróom benn ca lañ doon jongante Benno Bokk Yaakaar gagné département dama bëgg rek bu ñuy wëññi ñu wëññi ci suñuy loxo comme ça dinañ xam ñaata la gagné nañu Diourbel gagné Fatick gagné Foundiougne gagné Gossas gagné Birkilane gagné Kaffrine gagné Koungheul gagné Malem Hodar gagné Guinguinéo gagné Kaolack gagné Nioro gagné Kédougou gagné Salémata gagné Kolda gagné Médina Yoro gagné Vélingara gagné Louga gagné Linguère gagné Kanel gagné Matam gagné Ranérou gagné Dagana gagné Podor gagné Bounkiling gagné Goudomp gagné Bakel gagné Goudiri gagné Koupentoum gagné Tambacounda gagné ñu yokk ci gagné député ya nekk Afrique du Nord Afrique de l'Ouest ak Afrique du Centre kon lii leer na ne Benno Bokk Yaakaar am na majorité assemblée ñu ngi gërëm Sénégalais yëpp électeurs yëpp di aussi félicité di nga xam ne dañewuñu ndax sunu responsable ya fa ne woon xeex nañu ay gaynde lañu woon waaye démocratie nii la ñu ngi leen di encourager notamment nos camarades de Dakar qui se sont battus autant qu'ils ont pu dinañu jàngat nag résultat yëpp dinañu toog jàngat ko càmbar ko waaye déglu nañu Sénégalais la ca war a defaru dinañu ko waxtaan waaye tey guddi gii may wax ak yéen Benno Bokk Yaakaar gagné na largement les élections jërëjëf Voilà donc euh, Ibrahim Adjedjou, comme vous venez de le voir, hein,